yi waxtaan wi nag ñetti ponk la ñu ko tënkoon waaye amul benn boo xam ne rek déggoon nañu ci Ousmane Sonko nag ma ngay xam ne ne daal lépp ci respect lañ ko doon amalee te loolee moo ca gën a am solo amul benn contrepartie boo xam ne rek gis nañ ko ci waxtaan wi ci cellule boobee nga xam ne rek fa laa nekkoon xeex naa fa lépp lu ma mën nag ngir ñu bañ a reporter élection présidentielle yi nag moom Ousmane Sonko ba tey muy wax ne nag xamal naa leen itam nag ne loi amnistie bii ngeen bëgg a taxawal ci réew Sénégal bëgguma ko tey bëgguma ko ëllëg li ma bëgg rek jamono ji nag ci sama ndoddu rek ngeen teggiwaat ko bés bu ñu jëlee réewum Sénégal moom Ousmane Sonko ma ngay xam ne nag ne naam du ñu topp kenn di fayoon teeg moom waaye yoon moom faaw ñu daal di ko doxal ci biir réew mi diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko kon amoon na ay waxtaan loolee léegi lëkkaay bi di l'observateur bind ci xëtam bu njëkk ne leader bu Pastef nag ma ngay xam ne daal ni danger bi gën a rëy ci réewum Sénégal mi ngi tudd Amadou Ba le peuple addu jëmale nag ci duyoo bi nga xam ne rek am na ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye yéene kaay bi ne nag ña ngay wekkate benn par benn kii di Amadou Ba baax ne kenn gënu ko dangereux ci réew mi Ousmane Sonko ne yàgg naa jël lu mu moomul mën a ko tegal dafay jaay intérêt Sénégal ca biti réew bés bu ñu ko falee ci bopp Sénégal fan la Amadou Ba jëlee milliards yu mu yor loolee lépp Ousmane Sonko dellu suwaat na ci yéenekaay bi di la regard ne Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngay taal Bassirou Diomaye Faye di suuxal Amadou Ba addu jëmale ci yëglekaay bi di bés bi le jour ak tontu li nga xam ne rek Amadou Ba yëkkati Ba nag ma ngay xam ne ne Ousmane Sonko ak diffamation nag c'est une l'observateur ne Amadou Ba kay ma ngay tontu nag di xam ne ne lu jëm ci wàllu diffamation yàq derub nit ak ay kàcc wala manipulation nag bàyyee kook Ousmane Sonko ndax loolee ci dereetam la nekk lu mu ci mënti doon daal le quotidien yëglekaay ma ngay dellu siwaat ci projet bu Pastef bu yees bi nga xam ne rek taxawal nañ ko Ousmane Sonko ma ngay dellu siwaat ci waxtaan yi mu séq ak président Macky Sall ne nekkatul seenub adversaire waaye jamono ji nag ki ñu war a jàkkaar lool mooy Amadou Ba yéenekaay bi di enquête ne ci jamono ji nag ci waxtu leeral la ñu toll jëm ci protocole bu Cap Manuel nag dellu siwaat ci confidence yi nga xam ne rek tukkee na ci Ousmane Sonko démb ba muy janoog taskatu xibaar yi fi mu toll nii nag Amadou Ba mooy cible bu yees bi nag moom candidat bii di Diomaye Faye nag ma ngay bi moom homme de dialogue et de ci wàllu monnaie bi mu bëgg a ak poste président nag indi nañ ci ay leeral moom Bassirou Diomaye Faye ak kii di Ousmane Sonko 24 heures addu jëmale nag ci kàddu yi nga xam ne rek doon nañu ko yëkk yëkkati démb Ousmane Sonko di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne bu lépp jaaree ci yoon nag daañu am 60 pour cent ma ngay sàkku ci ndaw yi nag ngir ñu dem daal di retirer seen i carte électeur ndax ñoom nag am nañu taxawaay bu am solo ngir ndam li nga xam ne rek moom la ñu war a am ci ngoonuk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars addu jëmale ci réew mi quotidien ma ngay dellu suwaat nag ci gàntal gi ñu gàntal recours bi nga xam ne rek moom la ñu déposé woon waa PDS ca cour suprême jamono ji na Karim Wade ak ñi mu àndaloon nag neenal nañu seen càkkuteef démb nag ca cour suprême yéenekaay bi di la ñu déposé woon ngir ñu daal di yi nag yi daañu weeru mars cour suprême nag lànk na ne du amal lu ñu mel bu yi ñu amoon yépp nag jaar nañu fa ngir mën a jot ci bopp réew mi waaye lépp la leen gàntal tàggat yaram la àddu jëmale yéenekaay bi di réew sport ma ngay xam ne ne Aliou Cissé nag ma ngay gën a bàyyi xel ndaw ñi nag daal jël kii di Amara Jara ak Sangaté stade yëglikaay nag àddu jëmale ci jongante xaritoo yi nga xam ne rek moom la war a amal liste bi nga xam ne rek Aliou Cissé taxawal